nga xam ne kon bisu àjjuma ñëw jullit bi bañ caa xëy ci ab liggéeyam mi ngi takku rek ci yéeneem bu fekkee daa bëgg a màggal rek àjjuma ji mel na yaxawat ak nasaraan ci seen bis yooyu def na lu ñu sib bu jàppee ne liggéey bu ne dañ cey sonn te nopp lu mënta ñàkk mu ne kon moom day noppalu àjjuma rek waaye amul nag leen lum ci yéene lu may noppalu def na lu dagan bu yéenee nag jàppe àjjuma bisub noppaloom ndax mën a bari xeeti jaamu yàlla yi yàlla sopp ak teel a mën a waajal jumaa ja dem ca kon loolu moom ngënee lu rëy la ak jaamu gu rëy la na cay séentu tuyaaba ju rëy rëy ba tey bu dee kilifa goo xam ne lu mu def ñu defe ne aw defin la mbaa muy boroom xam-xam ñu yaakaare ko ne aw royteef la daañu sib mu ñëwoon ci jumaa ja jëkk ñu noddu nodd gu jëkk mu daldi toog nag ba noddkat ba noddu mu door a jóg di naafila mel ne naafilaam googu dañu doon xaar nodd ga ba tey itam nag bu fekkee bu mu agsee julli woon na ñaari rakka nuyoo ko jàkk ji bu toogoon tam di xaar ba noddukat ba noddu mu door a jóg di naafila itam du tee ñu sib ko ndax dañuy bañ ñu xamul buñ ko seeni defe ne loolu mu def bàyyi ba nodd ga daanu mu jóg di naafila dafa am fu mu ko sukkandikoo dañoo bëgg daal bu ñëwee rek na naafila lam bëgg naafila te bañ caa xaar nag noddukat ba nodd mu door a jóg nag di naafila ne moom sax ba noddu gay daanu bu fekkee itam mu nekkoon ci naafila taraka yi matagutoon mën naa jàll ca naafilaam yooyee ba tey nag ñu bañ koo jaawaleeg mu teel a ñëw ci jumaa ji nga xam ne booba dawalal tisbaar rakk yo ngi ko bëgg a dawalal jotagut ba mu agsee nag mu daldi nuyu jàkka ji toog nag ba tisbaar jot ñu nodd mu door a jóg dawalal tisbaar loolu moom dara nekku ca ndax ba muy ñëw boobu daa fekk mu nees tuguta dawalal tisbaar kon bi noddee itam mu jóg dawalal tisbaar dala nekku ca ba tey nag mën na waxtu wa jotee rek laata koo koy tàmbalee nodd wala ba mu tàmbalee nodd rek moom mu daal jóg tàmbalee julli bañ a xaar ak noddam daanu ba tey sib nañu jigéen joo xam ne waxambaane la toll ci digg dundam rek noonu mbaa daal weesoogut fu ko góor ñi geesoo sib nañu mu ñëw ca jumaa ja ba mu yem ca sib dong sax mooy ragaluñ ca góor ñi am ci moom fitna bu amee taar lool lool wala mu waaj waajaay wax na ne tax góor ñi geesu ko moom na ko wax ca kanam day araam mu ñëw ca jumaa ja waaye nag la muy doon doon ndaw lu jigéen su fekkee ne amul taar buñ koy geesoo waajul waajtaay wuñ koy geesoo kon mën naa ñëw ci jumaa ja ak sib rek moo cay nekk waaye du àgg ci ak araam ba tey sib nañu ilimaan ji yéeg ca kaw minbar ba ba àggal door a nuyu mbooloo mi bi door a dugg moom daal di wax asalaamaaleykum loolu sopp nañ ko waaye nag mu yéeg ba àggal door wax mbooloo mi asalaamaaleykum bu dee ci gis-gisu waa Malick dañ koy sib nde sax da nga di gis xëy na fu mel ne waa Màkka ñi ilimaan ba day yéeg ci kaw minbar ba door a wax mbooloo mi asalaamaaleykum waaye bu dee ci yoonu Malick daal moom bu door a dugg rek na wax asalaamaaleykum waaye bu yéegee ba àggal nag ñu sib mu door a nuyoo ci yooyu jamono tey sib nañ ilimaan gannaaw bam jullee ba sëlmal muy naafila foofee la gën mooy mu bàyyi ba dem ba këram door a julli ñaari rakka hadis ba nee na yonte bi daraan def bu sëlmalee ajjuma day ñibbi ba këram door a julli ñaari rakka ku bokkut ak ilimaan nag moom bu ilimaan sëlmalee ba génn rek mbaa toog na fa loo xam ne génn xaj na fa moom su bëggee naafila mën naa naafila ndax la alquran ne fa isa qudiyati salaatu fantashiru fil ard du digleeg waral maanaam rek bu julli gi jeexee am ngeen sañ-sañu tasaaroo nag dem ci seen yitte fekk la ko waraloon rek mooy yonante bi daan jiital ca yooyu jamono julli gi mujje xutba bi mu doon xutba nag ñu dégg ne njëgg ma maanaam ña ña indi marchandise ma ñëw nañ mbooloo ma daw ca dëgg maag marchandise ma bàyyi fa yonante bi moom rek mu taxaw lu may moo ko fukk ak ñaar rek tere leen alquran yedde ci wa ida ra'aw tijaratan aw lahwanin faddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma inda allahi xayrum min allahwi wa min attijara walaw xayru rasiqin bay leen sañ-sañu nag fa isa qudiyati salaatu fantashiru fil ard bi mujje tudd ci yeñu sib mooy bisu àjjuma boobu nga toog ba fajar fenk nga door a bëgg a tukki ndegam jumaa war na la ba tey mën ngaa dem tukki waaye nag bu ñu sañoon daal ndegam fajar xas na fekk demagoo nga toog rek ba fekkee jullit jumaa gi nde sax balaa dem tukkee di araam tisbaar jot moom lay bëgg a wax léegi moom doo sañ a génn te xaaroo ba julli waaye ndegam nag tisbaar jotagut moom dañuy sib rek nga génn di tukki di fi bàyyi xéewal gi muy jullit jumaa gi te sax bu fekkee ne daa am ñuy àndal ñoo xam ne la xasee raw da nga loru wala bu dee kuy dem ci wol wol sàngam boobee bu xasee raw dana loru moom sib ga du ca amate waxarumate mu araam nag moom tukki ga bis sawaali ci tisbaar kataxattin niki ak jéggi aw kalaamin wala wax fii xutbatayhi ci biir ñaari xutbaam ña wa baynahuma ak seen diggante ñoom ñaar wala walam yasma ak doonte du dégg illaa an yalxuwa ndare bu dafa soow nag moom ilimaan ba lu may nag kay xutba daa wax wax ju génn xutba wa salaamun ak nuyoo wa radduhu akuk delloom wa tashmiitu xaatisin ak ndokkeel aji tisli wa nahyu laaxin ak tere aji soow aw ishaaratun wala junj laxoo jëm ci moom aw aklun wala lekk aw shurbun wala naan day tàmbalee wax foofu yi araam ba ci njëkk mooy tisbaar jot na julli jumaa gi war na la ngay dem di ko fi bàyyi nag di xaaroo ba julli ko bu la jumaa waree moom te julli jumaa gi jot na ndax tisbaar jot na day tax nga sañ a génn dem daal mooy mu wóor la ne am na dëkk bu nekk ci yoon wi boo xam ne da nga ca mën a jullee jumaa mbaa da nga àgg fa nga jëm jullee fa jumaa bu la raw takk-takk ba mooy li fekk weesoo goo juróomi kilomètre ak genn wàll moo xam buñ noddee da nga ko dégg moo xam doo ko dégg waaye daal la nga doxagoon sa digganteeg jumaa ja weesoo gut juróomi kilomètre ak genn wàll bu la wóoree ne waxtu nodd wa jot na rek war ngaa wàññiku ba julli door a jàll doo sañ a jàll noonee boo xasee weesu nag juróomi kilomètre ak genn wàll ya te fekk waxtu nodd wa jotagut kon mën ngaa wéy waaye moom it li ñu koy diisal diisal bu fekkee da nga am ñooy àndal ñoo xam ne bi la fi bàyyee rek da nga loru mbaa sax doo mën a demati baa booy dem ci wol sàngam boo xam ne bu la xasee raw rek mu metti ci yow dañ lay may kon nga bàyyi fi julli jumaa ga te dal di dem nga teg ca nag gannaaw ba ilimaan ñëwee ba toog ca minbar ba ngay jéggi baati nit ñi muy jéggi sàppe si jàll ca seneen moo xam séen nga foo toog moo xam séenoo foo toog bu ilimaan xasee toog ci minbar bi mbaa muy xutba moom day araam nga jéggi sàppe si jàll ca see nee nañ am na waa ju ñëwoon di jéggi baat nit ñi ci bisu ajuma noonu fekk yonent bi xutba mu ne ko ijlis faqad aadayta rawahu abu daawud toogal yaa ngi lor nit ñi bokk na ci yi araam itam ilimaan ji tàmbalee xutba ngay wax dara di ko yëkkati ca kaw nuyoo sax mbaa fay am nuyoo sax araam na ci yooyu jamono wax ja gën a wóor sax nga nekk ci biir jumaa ji ak nga nekk ci ëttub jumaa ja ak nga nekk ca yoon way ñëw ndegam nar ngaa julli jumaa moo la tax a jóg ndegam ilimaan a ngi xutba rek yooyu jamono doo sañ a wax jenn wax ca kaw day araam doo sañ a nuyu kenn bu la kenn nuyoo itam bul ko fay bu fekkoon ne moom dafa tëx mbaa mu sore sori ba du dégg itam waaye wóor na ko ne ilimaan ngi xutba rek yooyu jamono dana araam mu wax mbaa muy nuyu kenn nga xam ne kon lu waaye tàmm tàmm nuyoo bu ak see fekk ñu xutba moom na xam ne araam na muy nuyoo la nuyoo di baax baax te it waxtoom taxawee di xutba ak ba mu toogee diggante ñaari xutba yi ñoo yemoo foofu yépp dañuy aaye yëkkati fi genn kàddu yëngal sax ab xaalis wala di xotang xotangal ay yéreem ba ay këyit sax yépp dañ koy aaye lu may nag kay xutba daa wax wax ju génn xutuba ni kii di xas koo xam ne warisu koo xas mbaay tagg koo xam ne warisu koo tagg su dee wax lu wërte wax moom kon ña fa teewoon ca jullikaay ba ku yëkkati kàddu itam du araamati ndax ilimaan ja génn na ak xutba jëm ci lu war a jëm ba ilimaan tàmbalee xutba daal moom ba ba muy nopp ci xutba bu njëkk ba ba ba muy nopp ci moom ñaareel ba diggante boobu kenn du fa saña nuyoo araam na ku ñu nuyu itam day araam nga fay këla nuyu bu kenn dislee itam day araam nga di ko ndokkeel naa ko yarhamukallah day araam sax kenn di wax mbaa muy def lu mu wërta wax mbaa lu wërta def ba nga di ko aaye da ngay jaamure ci moom rek di ko fette su sax mbaa nga di ko sànni aw doj bëgg ne ko bàyyi li ngay wax mbaa li ngay def sax loolu araam na yow ci sa bopp boo ko defee rek def nga lañ aaye woon addis ba ne bu ilimaan dee xutba nga naa kenn noppil waay yow ci sa bopp soow nga maanaam def nga lañu aaye woon daa waxoon ne bu ilimaan dee xutba ku tisli dañoo sopp mu wax alhamdulilah ca suuf te bañ koo yëkkati fi mu toll fii nag mooy xamal la ne la yëkkati ga sant yàlla googee di ki wax alhamdulilah ba mu tislee wax ko ca kaw loolu lu araam la kenn dégg ko ne ko it yarxamukallah ndokkeel ko it lu araam la yooyu ñu aaya nag ku ko def du tax ñu wax ne ak julleem yàqu na ba ne ko julliwaatal tisbaar waaye dañuy jàpp ne tuyaaba ja lay ñàkk li nga xamee ne buñ taxawalee julli gi lekk naan day araam ba tey jamono yi ilimaan di xutba itam lekk ak naan day araam wa batidaa aw salaatin ak tàmbali julli bi xuróoji yi ca génnam ga wa in li daaxilin ak doonte ñeel kuy aji door a dugg wala yaqtaxu dagg naafila ga at daaxilu aji door jaa dugg ilaa in tahammada ndare ndeem tay na bu la wóoree ne ilimaanu ngi ne di ñëw tayit day waaxu rek jëm ci xutba ba ndax waxtu yu jot na te mbooloo mi teew na dana araam kon nga di fa tàmbali gennuk naafila doonte sax da ngay door agsi mook nga ñëwoon ba toog ñooye moo nga ñëw ba toog moom dogu nañ ci ne lu yàgg-yàgg sañu te seen ilimaan muy ñëw jëm ca xutba ba mu jóg di armal di tàmbali naafila kay doon a ñëw nag ca lañu woote waaye teqale bi rek mooy ni mu ko waxee bu dee ci yoonu Malik kay door a agsi su ko wóoree ne ilimaan nga nee di ñëw te ci xutba bi la jëm dana araam mu tàmbali naafila bu ko tàmbalee itam faaw mu war koo dagg moo xam àgg na ci am ràkka moo xam amul ràkka mu des nag day door a ñëw te itam seen toon ne ilimaan moom ba ngay ñëw mu daal tàmbali kooko lam def kenn du ko ko aaye li nga wax ne ko rek gaawal àggale ko ndax moom teyu ko day door a ñëw rek naka mu armal tàmbalee naa fi la doole yëg ne ilimaan kat ñëw na ba mu nga jëm ca xutba ba dangam yëgu ko woon rek moom na gaaw àggale bañ a yàggal julli ga te gaaw daal déglu xutba ba ku tàmbali woon a jullee naafila laata ilimaan di agsi nag moom ak ku mën di doon moo xam wóoru na ko ne balaa àggal ilimaan agsi mook xamu ci woon dara ñoo yemoo day àggale julleem googee moo xam jot na ca am rakka bu mat sëkk moo xam jotu ca am rakka bu mat sëkk moom na ko àggale rek te gaaw déglu xutba ba ba tey sax nee nañu bu fekkoon ne gannaaw ba mu séenee ilimaan muy waaxu jëm ca xutba ba fekk moom muy door agsi la daal di armal naafila waaye nag daa fàtte woon ne lii kat lu ñuy aaye la mbaa da ko xamutoon kooku yi dañ ko wax ne ko àggaleel rek mu am rakka ak ñàkk am rakka ci yam ndegam moom fàtte mbaa ñàkk xama tax du tee rek na àggale julli ga waaye takk-takk bi daal moom mooy su fekkee xësoon na ñëw ba toog gannaaw ba nag ilimaan door a ñëw jëm ci xutba ba kooku araam na mu jóg bu dee ci gis-gisu waa Maalik di tàmbali naafila te bu ko tàmbalee faaw da ko war a dagg bu fekkee ne it day door agsi waaye nag séen na ilimaan muy ñëw wóor na ko ne ca xutba ba la jëm mu xam ne itam aay woon nañu yooyu jamono ku ca naafila teewul mu tey ko tàmbali armal tàmbali naafila it faaw da ko war a dagg ndax ñoom dañuy jàpp ne déglu xutba bi farata la kon nag wareesuta yittewoo naafila ba muy dox sa digganteeg farata boo fusixa firéef na bay on jaay wa naxawuhu ak lu mel ne moom bi azaanin ci noddu taanin gu ñaareel fa in faata ndem raw na fal qiimatu kon xayma ja la ñuy topp xiinal qabdi ci waxtu ngëbug lañ doon jaay bu ilimaan xasee toog ci minbar bi ñi noddu nodduk ñaareel gi la fa dale ba ñuy sëlmal lépp luy jaay ak lu xeetoog jaay dañ koy araamal bu dee ku jumaa ji war doonte sax kam ko siqal mu waru ko it du sañ a jaayanteeg moom du sañ a jëndanteeg moom ak mboolem lépp luy xeetoonteeg njaay buñ jaayantee ci diggante boobu ñu wax ne jaayante ga araam na faaw yoon da koy tebbi ndegam tebbi njaay ma wéegut delloo ka doon jaay lam doon jaay delloo njëkk borom bu fekkee wéyegut faaw yoon da koy tebbi xàcc njaay ma ku ne jëlaat lam moom su fekkee nag lañ doon jaay xës na raw delloo ga wees na dañuy bàyyi njëg ga ñu waxante woon ñoom ñaar te seet waxtu woowee ñu koy jaayante ba kay jënd di fab loola ñu koy jaay ñu laaj ña xam loola fu njëgg a toll woon ci yooyu jamono ñu jàpp ne loola la jëndkat bi ameel jaaykat ba waaye jëmmi njëg gañ waxante woon moom wàcc nañ ko duñ ko jàppatee waxu duru tarkiha ngantul ak bàyyeem moom julli jumaa ga kal jamaati niki mbooloo ma fa jub julli mbooloo geneen ci julli farata yi shiddatu waxaalin mooy taruk ban wa matarin ak taruk taw wa juzaamin ak taruk ngaana wa maradin ak taruk tawat wa tam riidun ak ragal ku tawat li ñuy wax ragal jarak mooy ku tawat nga di ko toppatoo wa shiddatu maradi qaribin ak mettik tawatuk ab jegeñaale wa nax wi ak ku mel ne moom wa xawfun ak ragal xalaa maalin ci alal walaw li xayrihi ak doonte ñeel kudul moom aw xabasin wala ragal ak tëj aw darabin wala ragal ak dóor waxuriyun ak rafle waraa ihatun ak xet karihatun guddi guñ sib fayajib dana war isaalatuha ak dindeem in am kana ndeem jàppandina waxadamu wujjoodi xaaidin ak ñàkk am aji womat li ama ñeel aji gumba laa yoxtadi kook du mën a gindiku bi nafsihi ak boppam dafa dajale foofu ngant yi nga xamee ne ñooy tax nga saña bañ a dem ci jumaa ja ñooy tax itam nga saña bañ a dem ci jullit mbooloo ga nga xam ne ngant yi tax nga saña bañ a dem ca jullit mbooloo ma mook ngant yi tax nga saña bañ a dem ci jumaa ja ñooyemoo mu jëkke nag su dee taw mbaa suuf si amee ban bu naqaree dox bu taw ba xawee bari ba nga xamee ne boo muuruwut rekk tooy mbaa suuf si yoon wa tooy def ban boo xam ne boo cay dëgg muy sumbi say dàll loolu ngànt la mayees naa bañ a dem ci jumaa ja mayees naa bañ a dem ci jàkka yi mbooloo ma mu teg ci ngaana gu metti ngaana gu metti mooy ngaana goo xam ne ba léegi am na xet rawante na muy wàlle su fekkee ne am na xeet mbaa muy wàlle moom ak mboolem xeet tawat yi wàlle te demee noonu dañuy ber kooka di ko faj ba mu wér du sañ a dem ca jumaa ja du sañ a dem ci jàkka yu mbooloo ma lu may na dañ faa sàkk foo xam ne ña mel ne moom rek ñoo fay jullee kon moom day war a dem te dem foofa su doon ngaana goo xam ne nag moom amatul xeet te it du wàll kenn kon du ngànt dana war a dem ca jumaa ja war a dem ca mbooloo ma bu teg ci tawat ju metti ba tey sax tawat ja mën naa bañ a metti loolu waaye su bëggee dem rekk ca jumaa ja mbaa ca mbooloo ma yëg ko mu metti ci moom di jëmi tawat ja mettiwul noonu waaye nag dem nga ci bopp moo koy indil coono bu méttee metti kon ba tey am na ngànt mën naa toog mu teg ca nag toppatoo ku tawat bu doon nag ka tawat da di ab jaambur mbaa bu dee sa mbokk it mbokk mu la sori la lay tax nga sañ a toog fa moom mooy mënti ñàkk ko taxaw te yow rek nga nekk fa waaye bu fekkee ne moom keneen a nga fa mbaa boo demee julli ji ba ñëw du ko yëg du ci am benn jafe-jafe day war kon nga julli ji sa mbokk nag mu la jege wala sab xarit mooy lee mu ne wanax wi xii mbaa koo bokk di séyal ni ki ngay jëkkër ci moom mbaa ngay jabar ci moom yooyu yëpp moom bu xasee tawat tawat ju metti rek nga daal di am sañ-sañu toog fa moom bañ a julli ji doonte sax boo demee am na ku fay nekk mbaa sab toogaay du ko jañ dara itam mettik tawatu ku mel noonu rek daray may nga daal di toog bañ a dem ca jumaa ja wala bu dee geneen jullit mbooloo nga am sañ-sañu toog bañ caa dem rawante na nag kookee demee noonu ci yow àgg ci sukkuraat nga xam ne mbiram soreetut mbaa sax mu dem ba farfaatu ba àggal nga xam ne toppatoo waajtaay ak yëgle ko ak waajal ko rek mooy yitte je yooyu yëpp kon ngànt la luy taxa sañ a bañ a dem ci jumaa ja sañ a bañ a dem ci jullit mbooloo ma ba tey su amee alal joo xam ne su ko ñàkkee dana metti ci moom lool ndax mbaa moomul alal ja sax waaye nag bu alal ja sànkoo mën na caa jële lor ju metti mbaa ka moom alal ja te dénk ko ko mbaa daal mu nekk ci ay loxoom ci geneen wet kookee mën na caa amee lor ju méttee métti bu ragalee ne bu demee ci jumaa ji rek mbaa bu demee julli mbooloo ko rek alal jooju mën naa laatu kon am na ngànt mën naa bañ a dem ba tey bu ragalee ne bu demee ca jullik jumaa ga mbaa ci jullik mbooloo ga daañu ko tëj kaso mbaa ñu dóor ko te lépp ci tooñ dong lay doon du tegu ci aw yoon kon ba tey loolu ngànt la su fekkoon ne nag tëj ga kaso mbaa dóor ga moom ci yoon lay tegu xam na ne moom la ko waral ci moom la kon daa war a dem ci jumaa ji rek buñ ko tegee loolu itam mu xam ne dañ koo teg rek la mu war a tegoo mu teg ca bu raflee am na ñu ne rafle ga tax ñuy wax mooy amul sax lu mën a sàng awraam ci kaw wax ñooñu bu amee lu mën a sàng awraam moom doon sax war na ko rus a génne ci mbooloo mi it du tee rek war naa julli ji am ñu ne bu dee boroom bañum rus moo xam ne daal la mu am moom su ko génnaalee war a rus kon loola ngànt la foofu am na wuute mu teg ca bu amee xet gu naqaree naqari bu dee xet gu naqari goo xam ne dafa lekk lu mel ni laaj mbaa soble te fekk boobu ñëruñu woon mbaa mu tux tux moo xam ne daa naqari xet su ko mënee dindi moom faaw dee war mu dindi ko du sañ ne rek daa koy bàyyi noonu ndax bañ a dem ci jumaa ja su fekkoon ne sax daa bàyyi ba jumaa jege mu tux tux mu naqari xet ndax bëgg am ngàntul bañ a dem ci jumaa ja mbaa jullit mbooloo ga yoon da koy forcé ne ko ay ci demal ca jumaa ja demal ca jullit mbooloo ma ba noppi nag boo demee beru foo xam ne doo lor kenn ca ña fa teew bu fekkee nag xet gu naqari ga moom tey ko woon jubluwu ko ca woon yàllaa ko dogal te it mënta fexe ba dindi ko loola kon ngànt la moom du dem ca jumaa ja du dem ca jullit mbooloo ga ca des waaye su ko mënee dindi faaw mu war koo dindi bu fekkee moo ko tey it noonu ñu waxoon rek mooy àtte ba bokk na ci ngànte itam muy gumba goo xam ne mëntu yóbbu boppam ca jumaa ja mbaa fa ñu julee jullit mbooloo ga te amul koo ci yóbbu mbaa am na koo ci yóbbu waaye la mu koy fayu mënu ko koo fay su ko fayee rek loru de moom li muy gumba gumba su ma nee dem ak boppam mu war a dem su fekkee am na ko mën a yóbbu ngir yàlla itam mu war a dem su amee itam ko mën a yóbbu ci mu fay ko waaye la mu koy fay dana woyof ci moom àttan na ko bu baax du ko wàññi dara it mu daal di war a dem bud loolu nag ñu xam ne kon ngànt la ba tey nag moo xam jumaa la moo xam jullit mbooloo ko ca des la su màggatee màggat goo xam ne bu doon jéem a dem faaw mu toggoo ca coono bu méttee métti màggat googee ngànt la kon mën naa bañ a dem faslun li ab dog la moom da ci wax li ñu wax jullit ragal sunna sunna léef na li xitaalin ngir ab xeex jaayisin bu di aji dagan am kana bopp jàppandi na tarkuhoo bàyyeem ga li baaxdin ñeel ñenn xasmuhum seenug séddale ñoom way xeex ña xismay ni ñaari xaaj wa allamahum te xamal na leen it naka lañ koy defee li waral jullit ragal mooy jullit ñi waxtu julli jot te ñuy xeex xeex boo xam ne yoon aayiwu ko mën naa nekk xeex bu war ni ki fekk ñuy xeex ak yéefar ya mën naa am itam muy xeex boo xam ne dagan na ndax daa am ñu bëgg a foqar ci seen alal dëgg la sax seeni mbokk jullit lañu waaye ñoo leen tooñ bëgg a foqar ci seen alal xeex boo xam ne daal ayut te it mënees naa xaaj mbooloo ma def leen ñaari xaaj ñee di julli ñee di xeex foofu la ñuy defee jullik ragal gii su fekkee ne mbooloo mu xamoon nañu nañu defee julli gi du tee ñu sopp ilimaan bi waxaat leen ko ndax ñu fàttaliku ko su fekkee xamuñu ko woon nag moom day war mu xamal leen nañu koy defee bala ñu caa dugg wasalla julli na bi azaanin ànd ak nodd wa iqaamatin ak liqaam bil ula ak kuréel bu njëkk ba rakxatan benn rakka fi tunaiyati ci jullik ñaari rakka wa rakxatayni ak ñaari rakka bi xëyrihaa ci gudul moom tuma xaama topp mu jóg taxaw daaxiyan mbir mu muy aji ñaan aw saakitan wala muy aji noppi mutlaxan